asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk ñu suivre ci Leewtoo TV nuyu nañ leen ziar su ngeen gisee ki toogal nag defe naa du ngeen ko laajte waaw Ibou Ndiaye ñoo xam ko bu baax a baax di mbër di doomi Diofior ak Parcelles Assainies tey nag moo sol daal lam ñu fii seet si waa Leewtoo TV Ibou Ndiaye maa ngi lay bëgg di la ziar waaw maa ngay fay Babacar maa ngay di nuyu xam nga di leen ziar yéen ñëpp waa di ziar kilifa diine yi kilifa aada yi xam di ziar ñëpp di nuyu suma waa koñ xam nga di nuyu waa Parcelles Assainies unité 1 ba 26 xam nga di nuyu suma yaay di nuyu suñu waa kër waaw di nuyu suma waa koñ bu baax a baax a baax waaw di sant di gën gërëm di sant sëriñ Touba bu wér a wér di sant Serigne Touba. bu ma doon laajte Ibou Ndiaye Obali mooy kan kan mooy Ibou Ndiaye Obali. waaw Ibou Ndiaye Obali benn xagagaa bu juddoo fii Parcelles yi xam nga yaroo fi màggee fi di doomu Diofior xam nga waaw nekk xaga di dund wàmb gëm ko ba yegg si fii ñu yegg si tey quoi waaw. nekk xale di ko dund ba yegg si mu yegg si làmb lu la ci dugal kan moo tax nga dugg ci da nga amoon idole wala. waaw làmb moom ki tax ma gën cee dugg ma suñu grand Moussa Dioum waaw Moussa Dioum moo tax ñu gën parce que dañoo nekk ay booy muy bëri ji di dem di ñëw waaw saay bu daanee ñuy yuuxu xam nga di zibiga si koñ bi. tey moom bokk na si lu tax ñu gën a bëgg am di ko nuyu tamit au passage di ko sant di ko gërëm parce que day jàpp di ma di sonn si man Moussa Diom aw ma fayam mhm, ak mbëru parcelle yëpp waaw ñoom du gaa yëpp maa ngi leen di ziare ñoom ñëpp di leen nuyu waaw. nga dugg si làmb. waaw làmb maa ngi si dugg 2015 14 15 waaw. 14 15 waaw. njëkk a bëri arène. waaw si laa njëkk a bëri arène prince moo ko tëggoon quoi première journée prince bi. kan nga bëri lan boobu jàpp nga ko. waaw dafa de benn mbër bu dëkkoon yoof waaw suma komba boobu noonu xam nga sama premier combat dañ ma daan boobu maa ngi am maa ngi nekk booy bu ndaw mais kooku moo ma def mbër nag. kan la yëpp tafa tafa bàyyi na léegi bëri foog naa waaw. nga nekk actuellement. maa ngi écurie Parcelles Mbogo. Moussa Dioum waaw maa ngi foofu waaw. ñaata combat am man am na cinq combat arène. ñaata victoire. am na quatre victoire bi sama premier combat dañ ma daan. waa kañ mujj a bëre arène. Euh, journée Bruce bi ak euh, Ahmed Dem bi waaw si laa euh, mujjee bëre yàlla may ma ndam. maak daara ji. waaw daara ji bu écrit ñoom Ahmed Dem boobu nga nekk. Caaroy Caaroy waaw Caaroy mhm. léegi nag dañuy dañuy ñëw ci lutte simple bi lutte simple bi moom Sénégal yëpp xam nañ ci xam nañ ci óbbali Euh, dañuy dégg ngay réclamer Diofior Ibou Ndiaye dafa di doomu Diofior wala lu ko dëkkaloo Diofior. waaw Ibou Ndiaye doomu Diofior la parce que man xam nga euh, euh, doomu Diofior la deretu séeréer séeréer la xam nga si ndey ak si baay waaw suma papa dëkk Fatick xam nga suma yaay dëkk Diofior may doomu Diofior xam nga moo war a Diofior bi quoi Ibou Ndiaye Diofior waaw ma koy réclamer parce que mooy yoon doomu Diofior la te nit amoo nit amul lu goxam amul lu dëkkam man joof yor laa am te joof yor laay tiitaroo xam nga sama mbokk séeréer yëpp tamit xam nga di sant parce que doomu séeréer laa. Hmm. léegi simple ñaata drapeau nga ci gagné gu. yii wax dëgg yàlla bëri na ñi may seetaan moom internet yi waaw internet Leewtoo TV yi xam naa ne. après dinañ commentaire yi di nga gis mais wax dëgg yàlla gi ma jël say drapeau mun ma ko compte waaw mun ma ko compte ma laaj internet yi rawatina fans club Babacar bi ñoom Jiga ak Cédric ak ay Pape Ndiaye ak gars yooyu ñoom xam naa dañuy topp lutte simple bi bu baax a baax a baax a léegi su ma ñëwee lutte simple bi mu mel ni jamono yi dafa tar ak yi ñu génn parce que dañuy gis Ibou Ndiaye gis rëg-rëg gis Selemele Libidor xam nga booy fay Général Malick Dout xëccoo bi metti trop ci seen diggante lu xew ak waaw lu mu waral mbir yi metti noonu. waaw mais pourtant affaire yi méttiwu sax gars yi ñoo ko métti rek mais affaire yi méttiwu parce que xam nga dañoo tombé benn génération rek xam nga gars yi ku si nekk sa génération bu jeexee rek suñu grand yi ñoo si jaar parce que man dama amoon mag bu doon bëri ambourage xam nga dafa voyagé léegi sax waaw ma koy sant di ko gërëm parce que kooku participer na bu bëri suma carrière xam nga jàppale ma bu baax a baax guddi ak bëccëg waaw lutte simple boo gisee mu demee noonu suñu biir ñu ñëpp waa dañ nekk ay génération nekk ay xale ku si nekk tamit di góor góoru waaw bu nga wane ne man nga comme xam nga suma raq boobu noonu du saane xam nga muy jàmbaar dëgg xam nga di di di di nit ku am jom di nit ku am fuga tamit di yaakaaru Diofior di doomu Diofior ak yeneen boy yi nekk suñu ginnaaw yëpp ñoom Babou bu ak yëpp waaw Euh, su ma ñëwee ci yàgg rëg-rëg dama gis benn làmb bu ngeen dugg daaw jéeg Ibamar Diop seen diggante taroon trop dëkk dëkkante ba nangam nangam ba yàlla def ngeen bëri mu daan la. waaw sam euh, rëg moom vraiment champion la xam nga ndaanaan la waaw wax dëgg yàlla parce que champion moom kenn du ko naataab naataab la du dëgg. waaw moo tax xam nga maa ngi koy nuyu au passage di nuyu sampion lutte simple yëpp xam nga parce que ñun ñëpp ay ay duñu ay noon xam nga ay adversaire kese gañ saa bu ñu bëree bu jeexee xam nga jeex na ko quoi mais ñu ñëpp ñoo far xam nga àdduna amul sago ku si nekk xam nga da ngay ut woo dimbalee say waajur. rëg ñaata yoon ngeen bëree. waaw rëg bëri nañ quatre fois. Mm, ñaata yoon la la daan wala ñaata yoon nga ko daan. waa man daan naa ko benn yoon moom daan na ma benn yoon ak euh, ñaari avertissement non astafurlah daan na ma ñaari yoon ak benn avertissement. Mm-hmm. yow foo ko daane. rëg daan naa ko fii Grand Yoff ok bu ma ñëwee ci booy fay wala Ngel John ñooñu tam defe naa daje ngeen ay yoon. daje nañ ay yoon waaw mën naa Ngel John moom euh, un un la mm-hmm. waaw Boy Faye moom daan naa ko ñaari yoon. mosulaa daan déedéet mosuma daan. Selemele. na ma daan. waaw mos na ma daan ba nañ ba nag moom Mbour. waaw ay nag. Euh, Korias Serigne Ndiaye 2. Serigne Ndiaye 2 man ak moom 2-1 la mu may door a daan nii mm. waaw. solo bu dee général Malika nag dafa naa moom bokk na ci li gën a tax nga ñëw fii général Malika yéen ñaar lu seen problème. waaw non amuñu problème sax général maa ngi koy nuyu au passage parce que moom tamit xam nga jàmbaar la ndaanaan la te xam nga dafa gëm-gëm def comme ñun waa général man ak moom amuñu benn problème xam nga parce que tey boo gisee mu demee nii sax na dama ne woon du ma si wax. jaruma ci wax mais xam nga nit yi ñoo may sonal di ma envoyé vidéo yi fu ne en général gi mu wax nii il faut nga dem xam nga setal sa der parce que xam nga rek ñun baaxewuñu ay wax waa dañuy jëf dem dugg nekkaat suñu ruq. lu général wax. waaw mooy wax jooju noonu mu wax rek nee na. comme li mu wax fi ci micro Leewtoo TV ne bëre ngeen mu bëre loola ba ngay yéeg si garab yooyu. waaw mais xam nga ba euh, Babacar am na wax yoo xamante ne nii boo koy wax sax yàpp internet yi ak yàpp Sénégal yi parce que tey général gënuma féetee ndaw bu ma magu man maguma ko wallaahi azim te euh, bu gars yi di commentaire di nga gis commentaire ñi ma xam Parcelles la juddoo yaroo fi juddoo xam nga diggante Parcelles ak Diofior su may morom su ma ko su ma ko wonee su may morom dangay ne non ñoom ñëpp ñoo ma mag te si kanam tuuti dinañ si xam dara wallaahi azim parce que tey dama toog di gis ay video gars di ma envoyé ku ne di wax waaw général xam nga euh, kii bi mu bi mu wax si. bi mu def ci Leewtoo TV bi mu def fii si Leewtoo TV xam nga ne dañoo tase Casamance. xam nga yàgg nañ ma tàgg ay micro may def ay interview wax mais xam nga xam nga fii mbër ku si nekk am nga sa waaw euh, Casamance tey da dama fa dama fa reñe xam nga si biir inter biir interview mi maa ngi dégg mu naan dama ko fekk daf ma fekk Casamance may lëmbe foofu noonu parce que dama bëri Casamance xam nga dem ba nekk fa champion di fooñi waaw daan mbëri yi fa nekk yëpp wax dëgg yàlla ñu dem ba euh, dëkk bi mu nekk nii. Badiana Badiana waaw Badiana ñoo ko dem jëli uniquement jël si ko dakaar daaw pour mu ñëw fekk si ma foofu noonu daan ma waa ñu tase fa man ak moom ñu tëgg suñu combat man ak général waaw ñëw bëre man ak moom xam nga bëre bëre bu métti wax dëgg yàlla mais yeneen li muy wax noonu yëpp. am bëre ba métti na mais fu mu mujj waxu fi mu mujj de mbër. Seydina Mouhamed. wallahi azim man bi général su ma ko déggee muy wax sax damay tiit parce que bu nee si bàmmeelam nga toog ne daf maa bërigoo ba ma yéeg si ay garab di moytu di daw di moytu daw man daf may man daf may def ay ree xanaa yow yow mii sax su ma doon bëreeg yow sa waay di nga di waxatuma nag koo xamante ne day entraîné comme yow nekk xale comme yow xam nga am ay mboq am am am am am lépp yow ngay bëreeg moom naan da nga koy da ngay yéeg si ay garab di wàcc am na wax yoo xamante ne sax du wax bu yenu maanaa général nag wax dëgg yàlla xam nga et sax maa ngi koy félicité si euh, kii bi ñu ko nommé. mais loolu balaa ñu si ñëw bëri ba nu mu mujjee yéen ñaar ca Kaolack ca ca ca ca Casamance. man ak général dañoo bëri barki arxuraanu kër dañuy bëri ba timis. ku daan dëkk bi ñëpp ñoo mujjee dugg si biir géew bi ñu arrêté combat bi ndax combat bu métti kenn daanu yow dégg nga fi général waxee daf maa daan xam nga moom waxam yëpp day naan dama ko bëree ko ba mu bàyyi. mais du déggoo fi mu waxee ne moom dafa maa daan. kon daan amu fa. barki Seydina Mouhamed yàlla rek moom a tiim. ñaata yoon ngeen bëre. moom ñaari yoon. dañoo bëree ba xam nga Casamance euh, fi fi ñuy nekk courant amu fa comprendre nga waaw fi ñuy nekk fi ñuy nekk courant amu fa léegi nag euh, ñuy bëree man ak moom di bëri di bëri ba affaire bi commencé lëndëm si nga gars yi dow si dugg si biir kii bi nu mu si biir terrain bi yàq làmb ji. bërki dem moom daan nga ko fi nga xam ne mooy terrain gaal gi. waaw mais xam nga euh, ñun moom sawaay munante wuñu suñu biir fii moom ku nga fi ne yaa mun sa morom dangay nax comprendre ñun ñëpp dañuy daanante suñu biir ñun ñëpp ay ay ay ay xagagañ rek parce que koo daan dimanche bi xaar ko dimanche bi di ñëw waaw man daan général ma ka taxumaa sax ay gaaf parce que général man ñaan naa yàgg daan ku du général waaw wax dëgg yàlla man moom man man maa ngi visé sama bët feneen foo xamante ne ay daan général taxuma sax di kii. làmb simple bi actuellement ku ci man ku ci numéro un. waaw instant bii nii de wax dëgg yàlla man. man man sama gëm-gëm. dama jàpp ne maa ci man saa ñëwee si damay wane ne ñëw naa si biir làmb sama présence dama koy wane. waaw su paasee nag paase na mais mënuma gëm ne mbër mën na ma ci waaw. mënuma gëm loolu. général ñu nominé ko meilleur lutteur ci wàllum simple saison bi passé nangu nga. waaw nangu naa dama ko koy félicité parce que man yoruma xolu ki ñaan soxoruma waaw champion la ndaanaan la di ko nuyu bu baax di ko gën góor góor kon def na daaw lu ko ko jox waaw mais gis nga bu ñu ko xoolee si cadre maanaam ku ëpp trophée li mu jël barki Seydina Mohamed amul mbër muy takk ngemb te internet dinañ si wax ku ma ëpp ay drapeau saison bi passé amul mbër muy takk ngemb gis nga bi waa Leewtoo TV di ñëw euh, si lamb manga bi nangeen ngeen seetaanaat ram euh, euh, euh, mooy manga ramb bi mu tegoon Fimra deux millions yooyu ma jëgoon foofu bi fa laa Leewtoo TV di ñëw rek yaa ngi dégg abu Ndour mu ngi koy wax si suuf instant boobu maa ngi nekkoon si dix trophées te boobu ni mu yàggee ak ñaata tournoi laa jëlaat si diggante bi. li nga jël daaw xam nga ko kon. non xaw ko. kon général yaa ko play tournoi yaa ko play dara. ma jël fukki nga yooyu mu doon wax pasi heure boobu maa ngi jël un million cinq cent fii nu mu tudd Ndiafat. mais nag xam nga lu tax mu demee noonu drapeau chef de l'État bi mu remporté xam naa moo tax waa CNG nommé ko ko. meilleur CNG de ANPS la association nationale de la presse sportive. waaw ah, kon xam naa noo nga demee ñoom drapeau chef de mais bu dee comme maanaam dañoo teg mbër yi seen i drapeau ku ku ku ëpp lim jël si saison bi. ah su ma nekku numéro un tamit deux gaay doon. kenn Oumay Drapeau. am na solo léegi ba tey Modou Lo tam ñu nominé ko ci wàllum lutte avec frappe bi mu nekk numéro bi meilleur lutteur. waaw googu c'est normal suñu grand Modou tamit ñu ngi koy nuyu bu baax a baax wax dëgg yàlla parce que jàmbaar la te kontaan nañ si roi des arènes bi mu ñu indi parce quoi waaw bu baax a baax di sant nag xam nga suma waa koñ xam nga di sant bu baax xam nga am Star doom day jibi xam nga. mais Modou Ama loo ci xam. Modou Ama waaw combat bu jaadu dañ war a mun a bëre parce que grand yi xam dañoo war a bëre grand contre petit pour ñun tamit ñu mun a génn quoi. Modou mën na dara ci Ama. waaw ah, Modou amul ku mu munta daan. ci Ama. barki Serigne Touba Mbacke Modou amul ku mu daan. waaw man xam naa baax li may wax waaw. mook Tapha Tine ànd nga ci. no Modou Ama bi man laa gis ne mooy combat bu neex. moo la gën. waaw Modou com Modou Ama. ah combat dafa am combat yoo xamante ne day gën a kii day gën a may day mayaat suñu waaw day mayaat làmb ji doole quoi. ban combat nga jàpp ne kon moo koy may doole du Ama nga jàpp yow. Modou man man boog moom ngaa jàpp. wax dëgg yàlla nga choisir. waaw choisir boobu noonu parce que coow gi bëri seen diggante ñoom ñaar. Uh-huh. waaw te man gëm naa ne buñ ko tëgee combat bu nar a neex lay doon. Uh-huh. Ama liñ ne dañ ne cent millions lay laaj wala du bëre daa noo ko gisee loolu. waaw ah, mais xam nga rek loolu moom wax dëgg yàlla ay programme mu ñoom Amath ak ñoom Zig Bag de quoi ñoom seen bureau parce que lamb tamit dafa métti am na yenn combat yoo xam te boo koy jël da a teg fu weer parce que gars yi seen préparation ñun xam nañ si ay caaxaan. déedéet ay caaxaan jëgu yooyu de moo tax boo koy jël da nga koy teg fu que da ngay wóor tey boo encaissé cent millions cinquante million day dem mystique. grand contre petit bi ñu wax ci lamb ànd nga ci. bu baax a baax a baax suñu grand yi dañ ñun dañoo war a yéeg tamit parce que toog nañ ni mbëri di toog. te kenn dàquñu fecc am nañ ginnaaw parce que su ma jógee dañuy jóg waaw su ma combat bi passé gis nga ni mu demee waaw di wax nag promoteur yi nañ ñëw ñu am combat man instant bii dama war a am combat. parce que koo teg sa bët yow. man instant bii nii nii nii wax dëgg yàlla fi ma teg su ma bët moom instant bii su ma mënoon a am Elton. Elton men bëgg naa ko xam nga bëgg naa euh, forsa bu Fass. Forza waaw euh, bëgg naa parce que xam naa ne général waxam ji yëpp man bu ñu ko yóbboon suma avance du ko jël. du ko jël. barki Seydina Mouhamed du ko jël man xam naa ne général Malika yow boo yóbboon na ko avance Ibou Ndiaye ngi nii. pour lutte avec Franc. non du ko jël. lu tax yow général daa dof bay jël. mel ni gars yi gars yi nañ der la de. waaw xam naa man du ma der. Ah, yow moom yëngal moom yaa ko fi dàq def moom. moo tax ak wax ji muy wax ni ak wax ji muy wax ni yëpp comme damay bëre bay yéeg si kaw ay garab ak di wàcc mel ni gogo. waaw ah, kon nga gis kay na fexe jël avance bi ñu xool ndax damay yéeg ay xam nga eh, Ibamar ma xool ndax damay yéeg si turbine yi daf may bëre ba may yéeg si ay turbine. mais tudd ko xam ne day xeex de Forza. ma yow ñooñu noyé nañ wax jee fi ne rek. ñoo noyé. grand yooyu yëpp noyé nañ. yan grand ay Forza yëpp noyé nañ. waaw hmm. ah, yëpp ñooñu ñëpp noyé nañ coogee fi ne nii rek. waaw da leen faa bëgg a fekk. sa waay suñu tournoi yi. <laughs> mbër bu si yegg demi finale dañ ko war a décorer. caaxaan jógul tournoi de. te dafa am benn affaire bu am. gis nga mbappat mi ku bëgg a ku bëgg maanaam ku bëgg a am mbër. dëgg na nga na nga jàpp si mbëru mbapat. parce mbapat mi amul tricher. yow imagine toi yow nga teg benn deux millions xam nga ñaata ténor ñëw moo tax gisoo léegi lamb simple yi nu muy feesee parce que foofu amul tricher fii da gis bëre dóor nga ñëw fay ñaari mbër sa waay ku nekk trente millions wala vingt cinq millions ñu ñëw taxaw woo yow mun nga ko sax ngeen nekk foofu di réewtoo yéen ñaar di réewtoo ba temps bi jeex ñu yëkkati seen roxo. comme genre ay combat ay Coins xam nga loolu ñëpp a ko mën. maanaam jéen ak Coins la ñu def da nga koo rafetlu. waaw mais ak yeneen combat googu xoolal saison bi passé affaire bi nu mu demee gars yi dañuy ñëw di wëwatoo rek xam nga te yow imagine toi nga a ñu teg ko si lutte simple. parce que bu dee dëgg yow sooy seetaan lutte simple sa xool day sedd. parce que da gis façon jéego bu ne da gis bëri pur et dur. ñun ngi ñuy daj si simple gi gars yi koy gars yi fayee ko ay millions sax duñ ko daj da ngay ku ñu si fàq nga kaat ab yi daw. ñu ñu yëkkati sa loxo làmb ji yem fa nga encaissé say millions dem toog. am na solo Ibou Ndiaye am na métier. waa Ibou Ndiaye am na métier. luy sa métier. waaw Ibou Ndiaye de ah Ibou de moom wax dëgg yàlla moom maçon laa woon. maçon woon waaw. mën ngaa maçon. non mënatuma ko nag fàtte naa ko de est-ce que affaire bi defuma si benn un an parce que man dama bàyyi jàng rek mënee baru tuuti. foo foo yem ci école. non est foofu de dégg naa mooy kalaasu nante yi. nante yi moom kalaasu góor yi fa laa koo xam nga def benn def benn manœuvre benn un mois waaw jékki-jékki rek waaw làmb ji dugguma comme mënumaa comprendre. am ji dégg naa gañ nga ci yaa ngi ciy gañ millions yu bëri dégg naa ak ay nag. maa ngi sant Serigne Touba baax waaw di sant nag xam nga suma benn grand du John. am nga gel ak euh, xam nga maa xamat responsable bu politique Diofior. am nga soxna. noo koy sant aw ma soxna. gel non aw ma gel. Ah. <laughs> awoo man instant bi instant bi ji mooy suma gel sa ah. Ah, bii nii. mbaa xale bi du la man instant bii nii rambu ji laa gën. moom mbaa dula mere. moom man. moom sa gel boobu. dimanche nga fekk ma dinaa ñu ñu tase si waaw ñu tase Adrien fa sama gel bi di nekk. waaw mais pas ay ay gelantu nii. ca kon tàggoo léegi te te làkkal ma séréer waaw di tàggu di sant di gërëm ñëpp xam nga di nuyu suma waa koñ di nuyu di nga sant di nga gërëm xam nga di nuyu mbër yëpp gars yi ma bokk ak game bi xam nga surtout mbëru simple gi xam nga gaa yëpp di sant suma booy yi nekk Diofior ñoom Dul Saane xam nga baabu saar ñëpp di nuyu waa Diofior bu baax di nuyu suma fans club bi xam nga di sant ñëpp di gërëm ñëpp di nuyu suma waa koñ di nuyu Jibi Ram Star xam nga ñoom dañuy sonn si man suma grand idi maa ngay nuyu ñoom Ndey ñoom Moussa ñëpp xam nga maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp xam nga di nuyu suma waa dëkk nag waa joof Diofior waa di leen wax ne faguga séeréer mexe sim naa nun yaakaaraa nun waaw euh, simnanun a paax a paax xeɗa nun nu moƴa mu ndamit mi Ibou Ndiaye maxey yakara nun a paax bugaam nu ndamtaam yaam bi ɓiy Diofior refum rew ɓiy seereer to ref yakar fog yakar ke seereer yakar ne o feeta mba euh, ndam euh, mba saqu drapeau ge seereer maxey sant a Diofior a fo xa ɓiy den sant a Arona fe Ya Ndem Ndey maxey sant a foges sant a Masin xam boya xe mi fop na ndamtaxam Diofior a fo xa ɓiy den tout maxey sant a nuun gidma nuun kanguyin fop maxey gidma nuun a paax a paax ko jonin wa maxey gidma nuun a paax a paax a paax jegim yaakaar nuun nda euh, waagim rabda nuun nuun a Diofior a fo séeréer fop maxey simna nuun mu fan si Ibou Ndiaye refna rek maxey bege ang a paax simnang ziare ang yaakaarang a paax a paax a paax jaajëf kontaan ci jaajëf